Moi d'abord content ci njiitu le président de la république Macky Sall ci décret bii mu jël répondre le peuple parce que c'est le peuple qui demandait cette grâce donc rendre hommage Khalifa Ababacar Sall ci dignité am ak ci courage am ak ci fullam ak honneur bi mu wane ci xeex bi te dara ci réew mi warmaal bi nga xamni ne na bobu ba léegi di ko joy di ko jooy ci jàmm bi ci top moy li xalif général def récemment dañ fa dem ànd ak Amsatou Sow Sidibé ak Hélène taxaw ne ko yaay yi ak jigéen ñi taxaw nañu ñëw ci turu yaayu xalifa di ñaan di dox jàmm pour xalifa demaat ci wetu waajuram loolu am xalif bi dox ko donc muy ndamu Sénégal 1 million 800 Séné 200 sénégalais signé pétition di laaj grâce pour le peuple par le peuple et pour le peuple Macky defal ñu ko ndamu Sénégal la Sénégal moo am ndam. daawuñu nelaw ñu lekk ba suur ñu tëdd nelaw ba yaandoor kon bésub tay bi mbégte la ci ñun. dañuy sant suñu borom bu baax julli ci Seydina Muhammad sant nag mu rasul mi nu jokku sant sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général kullu murid delloo di sant suñu borom bu baax jaam dafay gëm te Xalifa Sall gëm na bañu ko jëlee jàpp ko dugal ko fii ci ay truand ay pexe ay lu kenn xamul ñun dañu sant ndax xëy na buñ ko deful woon lii bakanam topp ci waaye comme kaso lañ ko tëj ñu ko fay dem di ko fa fekki di ko seet di ko nemmeeku muy waxtaan ak ñun dalal ñu amuñu lu dul sant sunu borom. lii bu amee ca Masaalikul Jinaan la amee kon ñu ngi sant bu baax ñun murit man de damay damay xàppi di sant suñu borom bu baax a baax. Khalifa Sall ba ñu ko arrêté ku ne xam ne ne arrêté wuñ ko si dara lu normal ndax mairie boo xam ne ni doon doxee lay doxee nga xëy rek jàpp nit parce que jàpp nga ko politiquement ñun loolu taxuñu ñu ragal taxuñu recul taxuñu dellu ginnaaw. xalifa nag heure boo ko seeti jee chaque lundi dama koy seeti heure boo ko seeti jee mi ngi dignité mi ngi personnalité te mi ngi ñuy digal toujours naan ñu yàllaa ko fi dugal yàllaa koy génn. moom gisee lundi laal yoon sama doom tourné ne pénitencier kii sama doomu bopp la est que bàyyi nga xeex wàññi nga ma ne ko papa mu ne ma naa ma ne ko du ma bàyyi xeex tant que yow génnoo fi nga ne mu kott ma foon ma ñu dugg si biir pour te dire am na ay seede. ma nekk ci projet de mariage ki nga xam ne mu ci biir prison bi di xalaat njabootam ci biti kooku tey buñ ko libéré dafa naa ne yàlla moo ñuy musal rek mais dee sa xaj na ci waaw continuité bi mooy ñu ubbi bët xam fu ñuy teg sunu tànk dem dal dem ak te xam ne senegal yëpp a ngi sunu ginnaaw yàlla na yàlla guddal fanam waral cëram bàyyi fi yaayam ji muy mère Awa Niang bàyyi kook ñun ba si kanam ak ndax ñaanu waajur am na solo. donc tey euh, mbir mi dafa jébbiwaat dafa suqalikuwaat pour gën a am tànki kanam pour man euh, jafe-jafe yi askan wi di jànkonteel Khalifa Sall man ko faj Khalifa Sall bu ñu dëbbantu mooy ki gën a ci politique ci Sénégal li mu dékk lu mu muñ amul benn woy politique bu ko muñ ñu tëj la kaso jooyoo demoo demoo infirmerie ñaanoo njëkk négocié woo je pense loolu lu ndaw ñi wara a roy la pour ëllëg ci sen carrière politique ñu xamné conviction ci politique kenn duko waxalé waxaale kenn négocier kenn duko discuter